wasali lisaani nawil janaani safil amani wasil baraa'i jërëjëfati ya Cheikhna Ahmadul Xadim Mbàkke jërëjëfati Sëriñ Tuubaa Mbàkke Xadim Rasul jaroo rek macha allah fa lamp ay ci nu ko defee saa su ne seen émission voilà nag dafa ñëwaat tey ñu ànd ak sëñ Assane Mbàkke Xelkom defe naa ni nekk na jëmm joo xamante ni kenn dootu ko présenté dama koy bàyyi mu daal di nuyoo ñu daal di xuus ci waxtaan bi sëñ Assane maa ngi lay ziar bu baax a baax. auzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim. alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala asrafil mursalin sayidina wa mawlana muhammadil makin wa ala alihi wa sahbihi zawi ridwan wa tamkin raditu billahi rabban wa bi islaami diinan wa bi sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ginnaaw ba ñu sante yàlla buur bi subhanahu wa taala ñu maase julli ci sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi sant sayxuna ahmad al xadim xaadallahu lahu maxtaaralahu di ñaan yàlla yitam ci kattanam ak darajaam ak sañ-sañam yàlla nañ fi bàyyil sëriñ Tuubaa sëriñ Muntaxa yéene ji ay waajuram amoon magam yu baax yi am ko yàlla na sottal seeni naal ba sumb ay naalamit te sottal ñaan kook moom te làq ci ngërëmal Cheikhul Xadim noonu lañ koy ñaanalee itam sëriñ Amdi Moodu Mbenda siège bi mu toog wóoti fi ay baayam wóoti fi ay magam yu baax ya yàlla na mottali seeni naal ba sumb ay naalam itam te sottal ko te an te ñu ànd kook moom te làq ci ngërëmal Cheikh Ibrahima Fall waaye duñu fàtte itam soxna si jàmbaar ju mag doon géeju xamxam ju yaatu doon gaynde diine doon mbégum tariixal islam jëpp nga xam ne àddina du ko fàtte jamono du ko fàtte kooku mooy kan moo di sayxuna wasilatuna ila rabbina cheikh saalihu mbàkke radiallahu taala anhu di leen ziyaar bu baax nag ci teew bi ngeen teew ci barab bi ànd ak soxna su baax si itam ci njiital seen jëwrin di sëriñ Medoune sëy borom tawféex di ku bëgg sëriñ Saliou mm. di ku koy dund itam kon nag teew gi ngeen teew tey ci barab bii nga xam ne day marché njaarim ngir ñu waxtaane it lenn ci jaar jaari Seydouna Mohamed kon soxna si ñoo ngi lay dalal di dalal mbooleem ñii nga àndal di ñaan yàlla itam ñu dugg ci bisimilah yi. ñaan ñaan yàlla itam yeggale ko alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilah am na solo ba tax na ni nu koy defee saa su ne ku ne xam na ne émission voilà day dugg fu ne. Hmm. dina jëlit ku ne euh, teg ko fi waaye dañoo dëgmal euh, gàmmu weeru gàmmu lan nekk te defe naa ne ku ne gàmmu. Euh, euh, Seyduna Muhammad rek ngay xalaat sallallahu alayhi wa sallam moo tax tey ñu indi tey Serigne Assane Mbacke mu fas ne waxtaan ak ñun euh, ci gàmm gi ak lu sabab gàmm hmm. ak weeru gàmm gi defe naa ni hmm. ñun suñu xam-xam waaye ku dend ak Serigne Assane Mbacke hmm. di ko déglu defe naa ni loo ci xamul woon tey di nga ko xam ni ko waxee rek Mbacke ñu ngi lay ziaraat ñu di am mbégte bu baax a baax toog ak yow di weccoonteeg yow Mbacke tey bu laaj tey li sabab gàmm ak wéru gamu bu ñëwé euh, ku ne saxé dem ci sayyidina Mouhamed euh, histoire bobu lañ bëggoon nga ñëwoon ñu ci Mbàkke jëf soxna ci ci laaj bu am solo bi nga laaj jëmele ko ci mawlid nabi té moy guddik sayyidina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam waxtane yonenti bi nak euh, day da da dafa bari ay ndariñ yo xamné da ci tabbi te gamu ñi nenañ bi bidaa ñi nenañ itam lepp lo xamné sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam defu ko woon nag képp koo sos ginnaawam bidaa la waaye bidaa itam bidaa bu rafet la ndax fàttali ko koo xam ne mooy ngeen gi mbindéef te mooy xaatimu nabiyina mooy ki nga xam ne ab yonenti dootul wàcc ginnaaw sayduna muhammad kon kooku waxtaane ko daa bari ngëneel yu ci nekk te sëriñ tubaa itam mi nga xam ne moom bi mu ñëwee dafa jël jëmmam def ko mbindaanum bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam abdullahi wa khadim rasulillah manam katalogu seigne touba suñu ko don jàngale lo mandar galé seigne touba dul beug rasulillah sallallahu alayhi wa sallam desna na ci khashidam seigne touba da ci wat ne billahi la ilaha illa huwa hayati wa mamati wa harakati wa sakanati ma sayyidina Muhammad jelna sama dundu man seigne touba ak sama de ak sama lépp jox sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon moom mahabbam ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam sallam won na dayo soxna si jamono ji buñ ca masaane yegg dan dan nañ gisal serigne touba dan dan dan dan roñol bopam bagage yu màgget dan takal ay bopam néeg yu yees moom sëñ tubaa te wax nañ mbollem lu way dan sakku ci serigne touba da nga dan wax ni bayil ba wéru gam naari gannaari buñ dan bayiko gannaar di ñew di cherche si touba dan dan wax ni bàyyi ba wéru gam jot ndax bu weeru gàmm si gis serigne touba dan na yemul ca loolu itam lu maanaam lu mu doon jox waay benn bu weeru gàmmu ñëwee sëñ tubaa daan na la jox fukkam ba wax nañ ñi daan na takk ay néeg yu yees moom sëñ tubaa daan rabbal basangi rombi jaan basangi rombi jaan yoo xam ne sëñ tubaa bu ko ràbbee maanaam gàmma tax mu di ko rabb cofeel gi mu am ci rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam yóbbee ne sëñ tubaa moom ñaari teen li sëñ tubaa defoon njariñ benn teen bi sëñ tubaa tuddee ko teenu koor benn bi sëriñ tubaa itam tuddee ko teenu gàmm teenu gàmm googu nag wax nañ ne weeru gàmm ba weeru gàmm la ko sëñ tubaa daan tijjlu daan sàkku ci ndox mi daan ci barkeelu ngir mahabba gi sëriñ tubaa am ci rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam kon boo ma laajee kan mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxtaane ko jafe na waaye jafewut itam waxtaane yonent bi sallallahu alayhi wa sallam day def jom ci nit bu ko dee déglu aku fit akum xel waaye dana waral itam mu am ak mucc ak jikko yu baax yu tedd soxna ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam barab bu mu jaaron bu ne barab bu ñu war di jaar la waye kenn war ta taxaw ak yim ak wax naan yoon wi la jaaron loolu duñ jarign dara julit bu amé tartar ci aduna warna bàyyi xel la rasulillahi dajoon ci makka waye bu tartari diini warna bàyyi xel ku melni umar omaru yashir wala bilal ibn rabah bilal ibn rabah da daj na lu ni ci diini yonent bi sallallahu alayhi wasallam nek na màkk fukki at ak dara yo xamni ci ay métit ak i ak fitna lako ay nonam tek waye bam deme ba jëkku len ci wibbu ko makka moom sayyiduna Muhammad dalena boyel dal di len jéggal kon waxtane ko day def jom ci nit bu ko de déglu aku fit akum xel waye dana waral itam nga am ak mucc ak jikko yu baxu tedd kon yonent bi barab bu mu jaaron bu ne rek manam mbollem gaay yu baax fi jaar muy mam Alaaji malik muy mam limamu muy muy seigne Bu Kunta muy cheikhul Xadiim kenn ku ci nek yemoo woon rek taxaw ne yoon wii la Seydina Muhammad jaaroon déedéet waaye dañoo taxaw nag ngir fas yéene koo rey kon waxtaane ko moom yonent bi sallallahu alayhi wa bari na lool lu waral ak sopp yonent bi sallallahu alayhi wa nit ki mënoo koo to do doo askanam ndax it askan wu riis la Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bokk bi doyul rek ci Abdullahi moo jur Abdullahi Abdul Muttalib moo jur Abdul Muttalib Xaasim Xaasim Abdul Manaaf abdul manaf xuseyun xuseyun kilaab kiraab mu rey mu rey kahbu kahbu aalib aalib fihru fihru malik malik naduru naduru kinaana kinaana xusayma xusayma mudrika mudrika ilias ilias mudar mudar nizar nizar maas ba ci àddunaan kenn musu cee mooy yàlla kon loolee day wane ne maanaam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla da ko waajal koo xam ne mën ngaa lim ay maamam ba ca àddunaan manam kenn musu ci moy yàlla manam barke bobu sayyiduna muhammad rek lako suñ borom subhanahu wa taala defal kon jaar-jaar yonent bi sallallahu alayhi wasallam ngir waxtane ko day don lu yeme soxna ci ndax li tax mani day don lu yeme yonent bi la la la la la la la kenn xamut ngir ma dogoon foofu wax ji tuuti rek cofeel gi sëñ Tuubaa amoon ci moom am na ay mag yoo xam ne daan nañ dem ci njaarim for ay rasul waaye buñ doxee ba ci kees gi sëñ Touba nekk maanaam dañ dañuy wax ne ay war a sëñ bi sëñ bi daal ne lu ngeen ci bëgg ñu ne ko mbàkke xanaa looñ ci jox mu ne teg leen te wëlbatiku maanaam booba sëriñ Touba soxlawul weñ ya waaye baatu gërësul googee la Cheikh Ahmadou Bamba bëgg mu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kon yonente bi mën ngaa lim ay maamam ba ci àddinaan kenn mësu cee mooy yàlla yonente bi sallallahu alayhi wa sallam xam nga ni Abdullahi mi ko meññi maanaam Abdul Muttalib mooy ki ko jur te abdul muttalib kenn la woon koo xam ne ku amoon cër makka la doonoon ku yéeme moom abdul muttalib waajuru euh, maanaam maami yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon booy waxtaane yonent bi mënta ñàkk itam nga waxtaane abdul muttalib mi nga xam ne mooy maamam kon yonent bi noonu law askanam toftaloo ci wàllu baay ba ci àddunaan wàllu yaay gi ndax aminatu mi yaayam doomi wahbu la te wax bu it moy doomu abdul manaf te yonent bi sallallahu alayhi wasallam mam maamam ku ci nek am nga ndam lu lay ak i jaloore waaye di indi ci jotay bi day gudd waye du nak nak ñu waxtane kenn ci maami yonent bi ndax mënu waxtane yonent bi to do tuddu ku melni abdul mutalib kan moy abdul mutalib soxna ci abdul mutalib euh kenn la ci maami yonent bi ko baxon la lol ba waxna na ñaxaarul xiraax te moy khunti bi jibril njëkk fekk yonent bi mo fa njëkk dem di jaamu yàlla ci wéru koor daana digal ay daana digal ay doomam ñu bàyyi tooñ ak yu bari yoo xam ne bi lislaam ñëwee noonee la ko tere mel ni naan sàngara ak njaaloo ak rey nit ba daan wax ni képp ku rey nit te tey ko war naa joxe téeméeri gile mu deetu te loolu wax nañ ni noonee la ko lislaam reconnaître bi mu ñëwee moom Abdul Muttalib kenn la koo xam ne itam moo gas sam zam zam gii nga xam ne nit ñi wax nañ ni bu ñuy dem màkka te indiwuñ sam-sam day mel ni sëri ca Makka des na mm. Abdul Muttalib maami yonent bi mooy ki ko doon gas waaye ba mu koy gasit maanaam noon yi di ko lor mm. daa wàqanteeg boroomam ne ko yàlla boo ma aaree mm-hmm. ba fegal ma samay noon bu ma bënnee teen bi mm. bu ma amee fukki doom yi góor danaa ca rey benn doom santee ko gërëmee ko xëy na booba rey nit ayul ndax ci diini sulma Ibrahima alayhi salaatu salaam lañ nekkoon xaj na ñu koy roy ca rendi gam bëggoon a rendi doomam joojee di abdu di maanaam di eh, eh, ismaila kon abdul muttalib bi mu gasee sam-sam ba yàlla dogal sam-sam bënn te mu jaayante woon ceeg boromam ne ko boo ma fegalee samay noon ba ma bënn teen bi maanaam bu ma amee fukki doom yu góor danaa ci rey benn doom santee la ko gërëmee la ko bi yàlla dogalee loolu am mu bënn teen bi am fukki doom yu góor daa jaayanteeg boromam da ko ne man day damaa waxante woon ak yow ne la boo ma fegelee samay noon su ma bënnee teen bi danaa ca rey benn doom bu góor santee la ko bi mu demee ba am fukki doom yu góor la wax ak doom yi doom yi ne ko bàyyi nu ñuy def mu ne ci nekk noonu ab bant bindu ci turam bañ ko defee mu ànd ak ñoom ba ca hubal hubal muy xërëm gu mag gu nekkoon ci Kaaba ga Abdul Muttalib daal ne dugal leen bant yi ñu daal di dugal bantub Abdullahi yi miy waajuru Seyduna Muhammad génn Abdul Muttalib jàpp ca loxoom jëm mom ci Aïcha ak Nahilatu fa ñuy turee deret wa xurey si jig gépp jug ne ko doo ko rey ndax boko ray nit ñi dañ koy daal di jàppeew yoon amna kenn ko ko ne da ngay dem ba ci njibar kër ba dëkk Xaybar nee nañ day wax ak yàlla waye bo démé bu leen ray ko baxna waye bu leen ni jottu ko it fa alhamdu ñu ñëw wax xoxu mu ne leen ñaati gilim ngeen yor ñu ne ko fukki gilim mu ne dem leen rey ko bam jeex sa su bantub Abdullahi génnee ngeen ray yeneen fukki gilim ñi di ko def ba gilim yi mag timéri gilim bantu gileem ko dóor a génn waaye pas-pasub Abdul Muttalib nee na faw mu wóorlu ko ñetti yoon waaye yoon mu dóoree rek bantu gileem ko doo a génn mu doog a xam ne rendi gii nag mu bëggoon ne rendi doomam joojee di Abdullahi bàyyi Seyduna Muhammad sun borom jotu na ko ci téeméeri gileem kooku mooy maami Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. macha allah tey bu ñu doon ñëw ci jikko yonent bi eh, ci tënk rek yenn ci ay jikkoom. ñoo xamante ni ñu ngi koy roy. waaw xam nga dañoo dañuy waxtaanee. yi ci gën a yi ci yi ci gën a fës. yi xam. waaw xam nga waxtaan wi boo ko uh-huh. jëlee noonu. Uh-huh. Euh, damay gàgg. Mm. ndax dafa am cirque buñ topp. Uh-huh. te cirque boobu it. il fallait que ñu koo dérouler. ba nit kiy déglu. mën a xam kan mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. dañuy njëkkante ak waxtu bi rek. waaw dañuy bëgg a cof fu ne. waaw xam nga xam nga xam nga jikkoy yonent bi. sallallahu alayhi wa sallam. dafa am loo xam ne Serigne Touba dañ koo jàngal. ci jikkoy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. yonent bi mboolem ku baax. tey koy naw jikkoom. ci jikkoy Seydouna Mohamed. sallallahu alayhi wa sallam la la la la la la ko royee. xam nga. jikko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam day jikko yu tedd di jikko yu màgg di jikko yoo xam ne itam bu ñëpp maase woon roy jikkoy sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam addina dana jag mbooleem ñi baax ñi fi jaaroon kenn ku ci nekk amoon nga pas-pasub maanaam roy jikkoy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba sun borom subhanahu wa taala mbakaral ko fegg moom yonent bi def ko xaatimu nabiyiina ki nga xam ne ab yonent dootul wàcc ginnaaw sayduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon guddi gi nga xam ne dañ koo jëm te mooy guddi gàmm bari na lool ay ngëneel yoo xam ne dañ ko cee mën a roy kon képp koo xam ne yaa ngi doon ab jullit te bëgg a dundal bëccëgu gàmm dangay yendoo durus alquranul karim ak xasiday cheikhul xadim yi moo xam xasiday maam Alaaji Malik wala maam Limaamu mag ñooñee nga xam ne kenn ku ci nekk bind nga kemtulaay la nga mën a bind jëmale ko ci sayduna muhammad sallallahu alayhi wa kon képp koo xam ne guddi gii ñu jëm bëgg nga ko dundal dangay ngay yendoor durus alquranul karim ak xaside yi tey joxe loo man ci aw ñam ak ak maanaam ak ak alal mm. euh, ak ak maanaam ay bernde ngënee li gàmm nag soxna si mm. ndax ngënee li gàmm mm-hmm. mooy maanaam mën a mën a mën a taataan ci maanaam may yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xam nga seigne touba da wax ci jës ne mawlidahu muazzamun mubarakun muhtaramu taxzimuhu yanqatimu ala zawi taqdumi seigne touba dañi guddi gamu day guddi gu mag la waaye yemul ci mag itam seigne touba neena na guddi gu barkeel la taxzimuhu bi sunnati yaquduna lil jannati bi isdiyaadun minnati li mukhlisin muazzami seigne touba neena na ku koy màggal moom guddi gàmmu deesu la xisaab loolu la Serigne Touba wax manam kep koy magal ci sunna te moy lamuy muy bëgg wax ci kanam mën na la yob aljana te day yok soy manam say xewal boko selale faman yu'azi mawlida nabina babi uda fala yuhasabu alada fahtarim wa hasami Serigne Touba neena ku koy magal moom guddig yonente bi sallallahu alayhi wasallam Serigne Touba neena na deesu la xisaab kon lolou day wone importance manam ngeenil yi nga xamne ne na ci guddigi فمن يغازي مولدا خير البرايا أحمدا فكسهيد سهيدا بدرا وخير وحمي sëriñ Tuubaa dani képp kuy màggal guddig yonent bi mel nga ne ku teew xare badar te mboolem ña teewoon badar yàlla suñ borom subhanahu wa taala da leen a gërëm ba noppi dig leen ajjana kon loolu day wane maanaam xar baax yi nga xam ne am na ci guddig maanaam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax sëriñ Tuubaa daa wax ci gis bu ba tey ne guddi gi day kep ku ci dindi dara ci sa alal joxe donte ben deureum la donte ben deureum la mel nga ne ko teewee xareb unayni ak haybar ba don dimbali yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon suko defé war nañu fexe ne ba ben deureum bum lewul bum ci tàbbi motax Serigne Touba ba tay wax na ni ku ci bégle ci lu saf soukër melni di joxe café wala ngay joxe ataya wala mew wala bisab wala ñam yu saf soukër melni mango wala orange wala pom sun borom subhanahu wa taala dana la dana la manam dana la bolé may la ay mbig yu sax adina ak alakhirah te do am jenn lor Serigne Touba del wax ni ku ci defar aw ñam melni ciéré wala ciép wala ak ndawal lu ñuy jëfëndiko lu mënti doon jox ko ki jang ngir màggalee ko guddigi sun borom subhanahu wa taala dana la bolé ci yiwi borom itti yu maggi te ñoy ni ci yalla yi lu melni nak soxna yu ñoo ci wara gëna farlu ndax lu ci ëpp itam li góor ñi di def ñoom duñ ko def kon nag togg ci ñam wu baax di ko jox ñiy màggal guddi gi maanaam noonee la ko Serigne Touba waxee maanaam sunu borom dana la boole ci borom maanaam itte yu kawe yi loolu nag lañ ci mënoon a macha am na solo waaye bu ñu toogee fii di wax gàmmu te du ñu wax Serigne Saliou Mbacke ah dana demee neneen ndax ku ne xamoon na digganteem ma gàmmu ni mu ko fonkee woon euh, sëñ Assane. waaw sëñ Saliou moom. ñaari bés yi daa doonoon i bésam muy bésu gàmm maanaam weeru gàmm ak weeru safar mhm. ñaari bés la yoo xam ne itam su masaane ñëw moom Serigne Saliou mbégteem daan na yokk maanaam cofelam it daan na yokk maanaam fa Serigne Touba tegoon gàmm ca cofel Serigne Saliou it teg na foofu gàmm daan na wax ci ay biir waxam yàgg ngeen ko dégg mu ne ñaari mu ne mu ne maanaam yamale kook beneen bës bu dul bésu gàmm sëriñ Saliou nee na loolu daray addina jaru ko daan màggal gi sëñ Touba da koo santaane waaye gàmm nag sëriñ Touba ko doon defal boppam ci njaarim wax nañ ne bu mag ñi daan mas di jàng ci maanaam jës bu bu mu xaddimatul am daa ñetti kuréel la daan doon kuréel bii dañuy jàng juróom-ñaari way ci jës bu taxaw kuréel bii jàng juróom-ñaari way ci mu xaddimat taxaw kuréel bii jàng juróom-ñaari way ca mawaahibu taxaw jàng nuuru daari nii مخدمه الخدمه مخدمه مخدمه الكبرى واي لي تي غني ييمي ايتام بون ما سانتي جانغ مانام مبولم لو جيم تي كافي ولا اي برنده سيرن توبا كو دون ديفال بوبام دي وير كوري لي جانغ تي تي غودي غام دي لين كو بيغيلي موم شيخ احمد بامبا ما واخنا ني بارفون بي ني واخ سيكي بو ماغ ني دان جانغ غودي غام سيرن توبا لين سيرن توبا مو لين دان وير مانام دان لين كو ديفال كون نك بس لا يو خامني ايتام سيرن ساليو joxaat na ko dayoo bu yéeme yéeme. muy gàmm ak màggal ndax waxoon na ni moom Serigne saaliw maanaam daara yi nga xam ne ay daaraam la. te moom mu yoroon daara yi. daaraam yëpp daan wax ne samay gàmmuwaay la. ba daan na joxe ndigal mbooleem fu ab maanaam fu fu maanaam fu jumaa nekk. wala daara nekk fa Serigne Saliou daan na wax ne nañ fa dem daja fa dundalee fa gàmm kon moom wax dëgg yàlla mm-hmm. dafa bëggoon weer wi. Mm-hmm. ba daan ko dund daan ko dundal radiyallahu taala anhu macha allah mu ngi noonu sëñ Assane waxtaan wi neex na loolu waaye day mel ni waxtu bi dafa mat mhm. amoon nañu yéen a gën koo yaatal waaye euh, minute yi du ko matale ndax waxtu bi moom dafa bëriwul dara dara mhm. te euh, defe naa li fi jotoon a wax wax nañ ko mhm. li fi jotoon a xamit xam nañ ko ndax tënkal nga ñu ko te am na solo loolu euh, ma bàyyi la nga tàggatoo ak boo amoon kàddu yooyu sànni yan kàddu lay doon waaw kàddu yi <laughs> mooy kàddu sant rek. di sant itam sëñ Medoune Seye moomu borom tawféex. nga xam ne itam lii muy defit lu ko ëpp njariñ amut. maanaam jël site boo xam ne dangay taxaw temm rek ngir fii jamono toll. maanaam yeewaat nit ñi xamalaat leen seen bopp xam fan la ñuy teg seen tànk. loolu day day day maanaam maanaam dafa am njariñ fii àddina toll tey maanaam réseau yi nga xam ne mooy réseau yii nga xam ne tey mooy internet bi maanaam du ma maanaam eh, maanaam mi ngi yàq waaye bu dee am lu yàq itam am na am na maanaam am na am na am am na ak defar kon nag site bii nga xam ne day sitam yàlla dogalit ku koy yëg gëstu wala nga di ci bàyyi xel di ci am am njàngale mu yaatoo yaatu te di nga xam it fi ngay teg sa tànk kon ñoo ngi ñaan yàlla barkeel site bi maanaam lépp lu ci jóge itam mhm. ci am njàngale mhm. moo xam kër gum doon ci këru diine yi mhm. yàlla doon njàngale moo xam ne itam yàlla da ciy def barke ndax it barke mooy lépp sëriñ Saaliw dañoo waxoon ca xel kom nañu lu waaye di sàkku ci àddina sëriñ Saaliw nee na na ca na ca maanaam na ci nit ki sàkkuwaale barke ndax barke itam mooy noppal nit ci àddina kon nag ne nit ñi xamaat fan la ñuy tegaat seen tànk bu te xam ne àddina sii kër àddina kër la goo xam ne itam ko dem ba gisatoo jenn doomi sëriñ Tuubaa gisatoo jenn doomi Alaaji Malik gisatoo jenn doomi maam limaamu kon day mel ni fagaru jot na kon nag nañu xamaat fan la ñuy tegaat suñu tànk te nungoo sax ci jaamu yàlla te góorlu damay faral di wax benn wax ju am solo te mu doon ndénkaane bu am solo boo xam ne kenn ku ci nekk war nga di ko bàyyi xel bu wér-wér ndénkaane bi mooy lan mooy Cheikh Omar Diop Serigne defar Cheikh Omar bi muy ñëw ci sëñ Touba njugo xëri la tudd bari na mag ñu ñëwoon ci sëñ tubaa bi ñuy ñëw turu ceddo lañ yor mais sëñ Touba soppi seeni tur sëñ sëñ sëñ Omar njugo xëri la tuddoon moo dëkkoon Mbacke Bawal boo demee Mbacke am na quartier bu ñuy wax Njóogi Njóobeen keroog bi mu ñëwee ci ànd ak sëñ Daaru Assane Ndiaye fekk sëñ Touba Mbacke Kajoor bi mu ne jëy loxo sëñ Touba sëñ Touba ne ko noonu loo bëgg mu ne ko jébbale sama bopp àddina jébbale sama bopp àllaaxira ëllëg loo am ma ci sëñ Touba ne nagal ma laaj ko saa borom ndax juróom-ñaari jógo sànni der bi kabbar julli ñaari rakka daal di ko ndongali mu ne ko Mbacke saa borom nee na laa la lungul sa njëbbal ani noo tudd mu ne ko njugo xëri jóob mu ne ko saa borom nee na naa la tuddee Seydina Omar kaddu googu la ko sëñ Tuubaa wax daa di ko ne bi ngay ñëw Mbàkke Kajoor di jaayanteeg man fanweer ak juróom-ñeent nga fi fekk keroog bi nga tabbee ci biir jaayanteeg man sëñ Tuubaa yàlla ñeen fukkiil daa di ko ne mooy lim ba Seydina Omar ibnul Xataab fekkoon saaba ya jaayanteeg rasulillahi fanweer ak juróom-ñeent keroog ba Seydina Omar tabbee ci lislaam moo leen ñeen fukkiil sëñ Tuubaa ne ko ko ñetti at la ko sëñ Tuubaa gërëm daa di ko ne ndongali kaay dellu njàmbur waaye boo demee njàmbur da nga jàpp sa njàmbur yëkkatib kaamil alxuraan jox ko ne ko téye ko sa loxam di joor jël sunna sonent bi téye ko sa loxam càmmañ daa di ko ne Omar mu ne ko mbàkki lépp luy jëf te xooloo ko mu nekk ci alxuraan nekkul ci sunna sonent bi Serigne Touba nee na ko bul jëf Omar mu ne ko mbàkke yàlla mayu ma ñett mën Serigne Touba mayu ko rasulillahi du la ko may sëñ Omar na tekk Serigne Touba ne ko dund gàndu teg dee yàlla mayu ko Serigne Touba mayu ko Seydina Mohamed du ko may benn jaam Omar mu ne ko mbàkke ku bañ a dund ku bañ a dee bul dund yàlla dee la njëkk a bind ko dund tabaraka lazi bi yadi mulku wa huwa ala kulli shay'in xadir omar mu ne ko mbàkke yàlla mayu ma ko mayu ko rasulullahi du la ko may omar mu ne ko mbàkke ajjana ju àndut ak jaamu yàlla sëñ tubaa ne ko saa baaram ne ko omar mu ne ko mbàkke yàlla mayu ma ko mayu ko rasulullahi du la ko may kon ndekete ajjana joo xam ne lu neex waay wax lu neex waay def sëñ tubaa nee na ooma jooju ajjana waaye taalibi bu ko dégg feneen booyo boo dem fa kon moom wàccoon ak nit ñi daal di ko ne omar mu ne ko mbàkke baax ba noppi te kenn du la ŋàññi daal ko ne yàlla mayuma ko mayu ko rasulullahi du ko may kon nak nit ñi nañu gëna xam fi ñi tek seen tànk ta xam ne fee ku fa bëgg dara da ngay nungo jaamu yàlla seigne touba dañi won bu leen bëgge bu leen mébét mag ñi ne ko mbacke luy bëgge mu ne bëgge moy bëgg mbir ba nopi te do def lo koy may ñu ne ko lan moy mébét moy li suñ borom sàkku ci nga jaamu ko bokku na li lay yombal jaamu gi sa xol bi baña ben tak tak bul iñana kenn bul bañ kenn bul soxara kenn kon nak yàlla nañu yàlla may deg ak top xëy waxtu we gàtt dëgg la waaye bu ñu amoon temps bu yaatu. Mhm. dañuy waxtaan ci gis bu. incha allah toj ko ndax it tubaa Touba Khadim Rasoul dafa indi maanaam jikkoy Seydouna Mohamed ci gis bul xulóob. kon nag bu ko jot gi mayaatee. ñaan nañu yàlla ba ko a sàkku gàmm gi ah, incha allah ba ba ba ba ba ba laatu ñuy gàmm rek. ñu waajal ko ñu waajal ko ndax it site bi. Mhm. Euh, sunub site la. dëgg la ndax sëñ medul mhm. kenn ku nekk xam na diggam ak Serigne Saliou. dëgg la. man su may jàpp nit Serigne Saliou rek laa koy jàppee ndax li ma war a am lépp Serigne Saliou defal na ma ko bëgg-bëggam ci Serigne Saliou nag ku ne xam na ko mm-hmm. kon nag yàlla yàlla barkeel site bi mm-hmm. ci barkeb Cheikhul Khadim mm-hmm. di sant itam barab bii ñu koy defee nga xam ne mooy Mbaw Broderi te euh, secrétaire bi nga xam ne day naar ñang ak euh, soxna Ndey Faatu teew fi doon ñu baaxit ñuy sant bu baax soxna si yow di la gërëm wax dëgg yàlla ngay ngay ku baaxit di ku ma yàgg topp ci internet bi wax dëgg yàlla moo tax bi nga ko sàkkoo ci man rek amul benn euh, euh, euh, kii da ngay ñëw te ni nga ko bëggee rek ubbil naa leen bunt yi daal saa bu ngeen ko yëgee ñëw leen ñu waxtaane sëñ Tuubaa jëzbu bi faaw ñu ñëw ñu yaatal ko incha allah fu ngeen ko yëgee daal mm-hmm. na ngeen ñëw ñu partagé waxtaane sëñ Tuubaa waxtaane njàngalem sëriñ bi mm-hmm. ndax loolu rek a des ci àddina caaxaankat yaa ngi récupéré nit ñi mm-hmm. di leen mooy loo yàlla di dugal naka su dul noona kon nag jugaat leen yéen it maanaam xeex ko mm-hmm. waxtaane baaxu gaa yi baax yi mm-hmm. ak njariñ li ci nekk ngir nit ñi mën a xam fan la ñuy teg sunu tànk yàlla nañ yàlla may dégg ak topp mm-hmm. yàlla bu mu doon sunu mujjanteelu gàmmu yàlla nañ ko fekkewaat at yu bare bari mu doon fekkeeg wér fekkeeg tal yàlla mën na ko yàlla ko def su beneen yoone it danañ waxtaan spécial Serigne Saliou Mbacké inshallah allah ah loolu moom mënta ñàkk waaw danañ ci danañ danañ ci def waxtaan loolu mo mënta ñak mu neexee yàlla sant nañ leen bu baax nak jere ngeen jëf jere jëf hmm. jere jëf ah, ñu am amal mbégte ne defe na ni cadeau yi serigne assan Mbacké xel kom yëkëti mom amatuñ dara luñ ci teg lu sant ak gërëm di ñaan yalla nak euh, lépp luñ fi ñaan yalla suñu borom nangul nu ndax ay hmm. ngeenelu kessa la weeru gam gi yalla nañ ci dugg ak bismillah gën ci alhamdullilah rabbil alamin te yalla nangul ñu suñu ñaan ñun ñëpp ndax gam gi ku ne xamna dañ ci wota sel jang alxuraan loolu lañ ci woote ba tax na nañ ko fu ko waay di defijee rek na nga ci ànd ak sell mhm. na nga ci ànd ak jaamu yàlla gu mat sëkk te caaxaan bañ la faa yóbbu euh, seen émission voilà la woon tey ñu ànd ak sëñ Assane xel ko defe naa ni li mu fi waxtaan lépp macha allah dugg na ci xol yi waaye du fi yam dañ naan première partie waaye day am deuxième partie incha allah rabbi ay ñuy santaat bu baax a baax borom kër gi sëñ Medoune Seye borom tawféex taaliba sëriñ Saliou boobu ndax ñun ñëpp sëriñ Saliou moo nu defar ay alalu sëriñ Saliou lañ euh, ngi noonu dinañ jox rendez-vous incha allah beneen émission voilà ak beneen euh, Euh, beneen euh, beneen beneen beneen invité rek incha allahu rabbi dinañ dugg ci këru diine yëpp incha allah balaa mawlid bi di jeex indil leen lépp incha allahu rabbi jaa ngeen jëf may gërëm caméraman yi bu baax di gërëm techniciens yi di gërëm monteurs yi ñëpp euh, jaa